yuuxu ku bëgg a tàccu tàccu yéen asalaamaaleykum mbokkub Sénégal gis nga gis nga sama prise de parole ñëwagul wante yéen ñi nekk fii taxaw je sais ay patriote yu mag ngeen est-ce ay patriote ngeen est-ce ay patriote ngeen gis nga. gis na le président Khalifa Ababacar Sall mi taxaw depuis deux ans et demi ñu nekk ak moom ci Yewwi Askan Wi président Ousmane Sonko nekk ak moom ci Yewwi Askan Wi amul fu lu warul Sénégal amul lu ñu defulul pour Sénégal moom moo dirigé coalition boobu may ñu victoire yi nga xam ni moom la du am kon. may demandé ñi fi nekk ñëpp ñi fi taxaw ñëpp ku nekk na ma tàccul le président Khalifa Ababacar Sall xam naa ni xam naa ni góor dëgg mooy ki taxaw nii te Malick Ndiaye wax na ko léegi dafa ni président Ousmane Sonko nee na képp ku ànd ak moom. na nga koy tàccul bépp leader bu nekk fii kon tàccul leen ma Khalifa Ababacar Sall tàccul leen ma Pape fi taxaw ñëpp parce gis nga gis nga gis nga sunu ànd bii ñu ànd boo bëggee mu jëm kanam da nga ànd si dëgg xam ngeen ni man mii dëgg rek moo ma dëgg rek laay dox te xam ngeen ni bu fekkee da ngeen bëgg lu jël fi le président Macky Sall il faut ñu ànd ci dëgg te ànd ci dëgg mooy képp kuy leader Yewwi Askan Wi képp kuy leader d'opposition nanu nekk benn àndandoo yëkkateendoo doorandoo xuusandoo ci kanamu président Macky Sall kon tàccu leen ma tous les leaders qui sont là tàccu leen ma toute l'opposition tàccu leen ma dégg jóg leen na tàccu ma dégg jóg leen jóg leen encore encore encore et lii laa xam ci yéen lii laa xàmme ci yéen lii moo mas a tax ñuy rey suñu bopp guddi ak bëccëg ndax yéen te lii laa bëgg muy continuer tàccu leen ba le président Ousmane Sonko tàccu leen ba Khalifa Ababacar Sall tàccu leen ba Pape Djibril Fall tàccu leen ma Karim Wade tàccu leen ma ñëpp ñi nga xam ni tey ñoo fi nekk di xeex contre le président Macky Sall président Macky Sall le peuple est là le peuple est debout le peuple est prêt à vous faire face ce peuple sonne l'unité ce peuple sonne la mobilisation et ce peuple reste plus que jamais déterminé à se battre contre la troisième candidature tàccu leen que Macky du bokk tey du bokk suba ñun ñëpp on est contre la troisième candidature de Macky vous savez je l'avais dit ici je le répète